bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonantam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di ñaax sunu bopp di ñaax sunu bokki jaame yàlla yépp nu fas yéene sàmmonteeg ndigalu sunu boroom yi di ko jooxe ni ko mu ko digal ni ko mu ko digalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngale ni ko noona te luñ ciy def ñu fexe ba mu mel nam war a mel loolu nag la koy maye mooy luñ ci xamut lu nekk ñu dem xam lu ji ko ndigalu suñu boroom yooyu gannaaw pas-pasub nit ki bokk na ci bi ci gën a am solo muy julli mi nga xam ne ginu dajale fii genn la ca ca moom julli moomu nag dafa laaj waajtaay am na laytaay yu ñu koy lalal teg ko ca kaw ak yu ñuy muuraat ca kawam ñu séq ko moo tudd àtte yi ak charte ya ak ponk ya ak ya nga xam ne bu ca duggee dee su ko tuddee te julli gu wér li tax nag mu mat a waxtaane te di ko baril te bañ di topp xew-xewi jamono yi rek di dem ndax xew-xew day xewi te jaamu yàlla du xewi mukk li fekk ñu sa ngi dund mu defi nag biñ ci gën a taqool nag moo mat a gën a sonne moo gën a mat a sonne ndax moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu nit ki saa bu ak ruuxam rotee ba ñi koy laaj di ko laaj li ñu koy jëkk a laaj mooy sa diggante ak julli bu ëllëgee it moom la ñuy jëkk a teg su ca jaam bi góorgóorloo kem kàttanam mënees na ko muñal yi ko des yépp waaye su melut na war a mel dañuy tàmbali di seet te yàlla kum seet dana gis awwalu ma yuxaasabu bihi al abdu yawma al qiyaamati as-salaa fa in saluxat saluxa saairu amali wa in fasadat fasada saairu amali moom la mujj dénkaane itam bi mu demee ba nga xam ne mi nga wax làmmiñ wi tàmbalee damm suñu boroom dañu fa wan ak niteem bokk na ci li mujj dénkaane assalaata assalaata mafuul nag bihi suñu ko baa moo ñaari yoon taxdir lay tekki mën naa tekki taxdir wala tanbih assalaata assalaata jullee ngi nii jullee ngi nii waay waay sàmm leen seen digganteeg julli fonk leen julli taxawee leen julli li feeg yéen a ngi koy man la ca dolli ko daal mooy képp ku leen yàlla booleel tam ne ci seeni yoxo na ngeen def seen kem kàttan ba bu ngeen layoo ëllëgit layoo ba du metti assalaata assalaata wa malakat aymanukum julli moomu nag laytaay yi nga xam ne daf koy jiitu mu topp ca ñu tudde ko julli gu wér ba cay jiitu mooy ab jullit loolu moom daanaka sax xawut a jara wax ak ñu ne ci biir jumaa waaye ah kay léeg-léeg nga gis koo xam ne day am xaritub jullitam maslaa ma ëpp tax koo julli sa dugg sa jàkka ja kam àndal xam ne kii du ab jullit waaye maslaa mooy tax googu julli yàlla du ko limaale ab julli da ngay bokk ba noppi mi ngi mel ne rek ku ñëw foo xam ne fii dañ fay fay nit ña weer fa la ñuy fayee nit ñi seen weer dañ liggéey saa bu xëyee ñëw rek buub ba mu set fomp dem mi ngi def lu baax waaye nag bu ñuy fay duñ ko fay ndax turam nekku fa moo tax am na ci biir julli yoo xam ne ku ko jullee du wér ba ci jiitu mooy bañ a doon ab ab jullit ni jullit yi waaye am na ci yoo xam ne nag li nit ki waroon a am ci julli gi daf ko koy yàqal daf ko koy xañ doonte ab jullit mën naa julli te julli ga du baax itam ci laa jëm si waaye am na ci yoo xam ne na ko koo ko doon defe daa wuutee ak na ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk yi laytaay ji gën a am solo gannaaw bu nit ki doonee ab jullit mooy buy julli mu amuk laab ak laab laab mooy catug diine da nga gis ñu ne la booy raxas raxasool lii ak laa say yoxu set waaye diine moom li mu tuddee ak cat moo moom lay wax laab loolu nit ki raxasoo taxu koo mën a julli taxu koo mën a tawaaf bu fekkee ku nekk makkal mukarrama taxu koo mën a jàng alxuraan it su jàpput su jarut ci jàpp gannaaw loola wala mu tiim déedéet moo tax bu ñu demee ci alxuraan danañ ca fekk laab doon ay xeet yu bari waaye ba ca jiitu daal mooy xol bu laab bu set wicc ci lu dul subhaanahu wa taala mi mu ci war a fas soo demee ci suratul muddathir ay yëfa nga fa yoo xam ne tënku na tënk na dundug jullit bi yépp ci lim war a def yonent bi la doon waxal sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy njiitul jullit yi ci moom la ñuy roy mooy seen royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasan daf ko ne yaa ayyuhal muddathir yow mi nga xam ne yow la ñu muur ak yaa ayyuhal muzammil qum fa anzir nelaw jeex na jógal wax ak nit ñi xamal leen li ñu war a def ak liñ wërta def ñu xàmmee leen ñoom ñaar suñ ko defee sa jaan wàcc na seen jaan wàcc suñ ko defut sa jaan wàcc na soo fa jógee nga naan kaay la ñu dem te bañ dem te bañ a wax dem leen ma fekk leen fa rek wa rabbaka fa kabbir mu tënk jaamu yàlla yépp wa siyaabaka fa tahir am na ñu ko tekkee booy sol mbubb na doon mbubb mu gàtt ba tey ndax dañ cay moytu di dox di buubaale yeneen yu yoo xam ne doo xam lu mu doon war rijza fahjur lépp loo xam ne dana tax boo ko tax bu la taxee wala mu nga tax ko booy julli du wér ci ñu moytu la bokk wala tamnun tastaksir bul defal nit kenn dara moo xam muy sa digganteeg yàlla wala sa digganteeg boro sa boroom banaan xanaa war naa doy loo weesu weesu ko xeeb ko dañaan yàlla nangu ko rek wala rabbika fasbir lu la waaye teg muñal ngir yàlla waaye bu dee baatu tahaara bi mu ci tudd ay xeet la am na ñoo xam ne bu ñu waree julli ji laab ga ñuy am soog caa mën a julli ci sangu lay jaar am yoo xam ne nag njàpp mu dem ba màggat ci teggin jàpp mu toj moo koy waral ak yi tënk jàpp mu toj yëpp waaye am na foofu bu fa nit demee it dafa war yóbbaale ndox donte sangu wut bu sangu moo ko tax a dem ñu koy jàngale naan na jël suuf walla bant ba noppi door a door a jël ndox bokk yi loolu day àtte yu sew sew yu sew sewaan yu tuuti yoo xam ne dara mënut caa day naagal ndax kat wanag ak i armel am na kuñ jàppe woon ku am xelam neexut mu àtte ci ab dëkkub lëm bu dee armel yi ma yi ma mujj tudd mën naa yóbbaale wanag dafa ñëw ci dëkk bi fekk ñuy sanc mu laaj leen ana fu jàkka ji di nekk ñu ne ko fee lañ ko waajal fu fajukaay bay nekk bu doon suñ jamono ñu ne ko fee lañ ko waajal fu jaba di nekk fee fu garage bay nekk fee fu jàngukaay di nekk fee mu ne leen waaw fu ngeen waajal armeel yi ñu ne ko yow dof nga waxe dof ngay wax mooy leen kon naru leen a yàgg ci dëkk bi kon de naru leen a yàgg ci dëkk bi waaye wanag yàlla mi bind ba wax ne bi mu bindee nit da koo xool ba mu mel na mu ko bëggee fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqacu lahu saajidin lu mu booleeg nit rek nit du toll nenn ba dee su ci war a mën a waxtaan ak moom ca loola ndax yàllaa ko booleeg moom bind koog moom. moo tax ñi nga xam ne dañoo mënoon gan dëgg-dëgg su gan ñëwee bala ñu ko indil ndox dañ koy jëkk a wan wanag wa ba noppi ndax mën naa am nu mu ñëwee noo xam ne foofa dong dong la gën a foofa la gën a yittewoo ci lañ koy jox lépp kon boog ab jullit balaa jëm ci julli na dem ca wane ko ba ñëw ndox maa nga fa bu bëggee sangu sa bu fekkee daa war a sangu mu sangu fa su fa defee leneen ba war a ba war a laal ndox it mu laal fa ndox soog a génn jàpp soog a jëm ci julli gi julli moo toll noonu waaye bokk yi am na si ñooñ am nañ tuuti asiré yi ba soo ne leen dox leen rek dana leen wóor na yoruñu am jàpp wala leneen sax war na leen waaye rëy mooy tax ñu jóg taxawal ñi muy jiite nag te seenu xam aggut ci ba xam daa war a jàpp wala wërta jàpp ñoom seen julli mën naa wér waaye moom nag mooy yanu lu diis gan ndax mënoon na ne may leen ma ma dem wàcc dikk ñam koy wax ña ko ko wax du dem waaj du leen ko yàqal lu am solo la waaye am na ñoo nit suñ ne ay ci leen dañuy daal di fab seen loxo rek teg ci kaw tàppi bi kaw moket bi mel ni kuy tiim ndekete yoo ab tàppi mënta tiim moket mënta tiim su fekkee daal munta laal ndox ndax yay tee mu mën a jaar ci ndox door a ñëw julli si na dem wuti suuf ñëw bokk wala mu dem ci ci biti tiim bu fekkee mooy jiite ñu tàmbalee liqaam nga xam ne buy agsi rek fekk liqaam gi daanu ndax mook julli tiim ak julli ñooy taxala ko jokkale ko julli gi ci sart yi la bokk yi tax mu baax moo tax suñu boroom ne waxuñu laab ni ngir julli ci rek mu jaar ci sangu wala jaar ci jàpp waaye bokk yi li nekk ci laab cib jullit dem julli ji am na ca solo lool mën na mën na ca ëpp solo waaye bu ko tàmmee ba tàmm ko li ñuy wax li lay romb ki lay romb ak xet di la xeeñ moom duutu sa bokk ndax foo ko fekk day set wicc am na waroom xam-xam yu gëstu ne xale yu ndaw yi nga xam ne dañuy nàmp ku ne mën na leen jël ndax duñu am xet dara taxagu leen waaye ku taq ko laabe dana dem ba dara duutu ko taq mag ñi nga xam ne saa soo leen gisee ñee ko mu jàpp suñ defee dara yit dañuy daal di gaaw jàpp toogaat dañuy mujj dañuy mujj li ñuy xeeñ kenn du xam lu muy lu mu doon ci li ñuy xeeñ ñoom xet gu teey li ko waral mooy taqoo ak laab moo tax yàlla nee na woon fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu mbooloo mii ci jàkka ji jàkka si nga xam ne yàlla rek a tax ñu taxawal ko da nga fi gis ñoo xam ne ñi bu ñu sañoon fu ñu toll dañuy takkookub laab laab set wicc ñoo yey nag ndax yàlla mook ñoo ñaa ànd àndut ak ñoom yam ca waaye daf leen a bëggal boppam te yàlla bokk yi mooy ki nga xam ne bëgg ko yëmut ak dara waaye ku mu bëggal boppam it loolu sax moo mat a wut fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu wallaahu yuhibbul mutahhiriin daan soo gisee mu joxañ leen laab door a jëm ci jaamu yàlla doonut ne daf leen a bëgg a sonal waaye lim leen bëggal mooy cat gu tàmbalee fii jëm ëllëg ndax bu ëllëgee mu ne la jërëjëf nga ne ko de jërëjëf ka yaa ko yeyoo maa yuridu llahu li yajala alaykum min xarajin walakin yuridu li yutahirakum wa li yutima nicmatahu alaykum laallakum tashkurun moo tax seytaane ci liggéeyam bu rëy léeg-léeg mu dugal ci xelum nit ndax maa ngi ko jàpp waaw wala déet mu dëkk cam xelam te ci ibnu ashir ashakku wa shakku fi lxadati kufru man kafar dëkk sikk sàkk ba xam maa ngi ko jàppam déet day yàqum jàpp ci moom ci boppam donte yaa ngi soog a jàpp ne jàpp ba noppi la seet ba xam ndax jàpp mi baax na wala baaxul sax dama jàppwaat sakkantuma sangu mi nga xam ne ci njàpp njàpp ci kawam lay tege door a baax bokk yi suñu demee ba ci jigéen ñi la gën a bare danga gis ñoo xam ne danañ rus seen bisub ceet diw googu ñu leen di diw taax leen ko doo xam ab dóom la doo xam pëndu gattax xattax la ñu diw seen tuñ ya diw seen gët ya waaw xamees na ku ku ñuy ngénte mu bañ a julli waaye ku ñu jiital lu dox digganteem ak bu jàpp jotee mu dem jàpp julli ci bisu cër gi waaye bu munta ñàkk ba munta ñàkk am na si ñoom sax dañuy muuru ba jekk nirub jullit lool waaye bis boobu moom suñ munta ñàkk jullit dañuy tiim su ko defee nag nañ tàmbalee wàññi bis boobu ñu leen doon céetalee ba ba ñuy doon xubudu ba xam ñaata jullee fi baax ndax tegale bu njëkk bay jub rek yi ca des yëpp topp ñu gis ñoo xam ne seen borom ko def yi bàyyi ko ñu am juróom benn fukki at ñu yebal ku leen jàngal nu ñuy jàpp rek ni ñuy sangoo seet ajjuma ju nekk loolu it jullit yi war nañ cee taxaw wóor a wóor a wóor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon jàpp moo gën a wóor tiim ndax ku jàpp nam war a jàppee ca ndox ma ca fa mu toog di jàpp ak pas-pas ba mu am ak yéene ja saa bu noppee mu yëg ko wala mu bañ koo yëg waaye rëcc rëcc yi mu doon def te yëgu ko day génn ci moom ba su ko mënoon a laal danaan mi ngi nit génn ci samay wet di dem man tawaddaa fa ahsana al wudu'a thumma fa ahsana al wudu'a xarajat xataayaahu min jasadihi xata taxruja min taxti adfaari moo tax sëriñ bi bi muy jàngale laab daf ne laab jaare ci sangu wala wala jàpp atte bi julli am ci ab jullit la am ab jullit bu xëy xëy ne julli bokkatul ci lislaam danañ ko muñal ab diir ñetti fan la wax saa su nañu ne ko sa waay xanaa da ngaa jow bu ne juumut ñu tàggale boppam ak baatam julli bokkatul ci lislaam dañ ko naan ah dangaa bari kaf rek ñetti fan loolu sëñ sëñ bee ko bind ci ay téeram yu wuute waalam bi ann alsalawati alxamsa faridatun qataan wuqiita labsa bildicri walsunnati walijmaci wa man yakun minha ala imtinaaci jaxdan laha fa huwa kalmurtaddi fi lxukmi yustataabu ji malal fa in yatab yutrak wa in lam yatabi taxtuluhu bi sayf sariatu sariatu nabi bi sayf sariatu nabi loolu mbirum sëñ bee bukkut ak nag koo xam ne daane julli moom ci lislaam la bokk waaw waaye nag kooku duñ ko muñal dara dañuy xaar ba xam midi la ko wax dañuy xaar ba xam dana julli tusubaaram déet rek su julli tusubaar sëriñ bi ne nañ tàggale boppam baatam buñ ko yóbboo fa ñuy tàggalee ba baatam wax walaw tanaddama wa qaala afaalu li xawfi mahlakin fa laysa yuqbal te bokk yi kooku sëriñ bi nee na bu ko ñi gën di jullee wala yali salaatu salaatahu du fadli li kay yakuna zaajiran lil misli moo tax keroog ñu doon wax ne koo xam ne daa bokk ci ñuy xeex daara yi bu ko kenn jullee loolu du samay wax alquran la ña taxoon aaya ba wàcc ci jullit lañ bokkoon waaye dañ doon wax ca kaw di def ci suuf am ci kooku sallallahu alayhi wa sallam daa summi mbubbam ne nañ ko ko dencaalee yàlla ne ko du noonu nag waxuma la di summi sa mbubb di ko ko yónnee ñu di ko dencaale waaye fañ koy jullee sax bu ko fekkeeti ñi mel ne ñoom wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa maatu hum fasiqun wala tu'jibka amwaluhum wa awlaaduhum innama yuridu llahu an yu'adibahum biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kon ñi xeex daal nañ tegg seen tànk bokk yi ku weddi julli noonu lañ koy def sëñ bee ko bind waaye def na laabit atteb julli la yor inna tahaarata ladaynaa wajabat dikran wa sunnatan wa ijmaacan sabat taarikuha bi gayri cudrin uqila yuqtalu xaddan duna kufrin fa aqila id salaatu la tatimu abada illa biha wujubuha qad wujubuha qad bada loo xam ne ku tudd lu ñuy wax togg di lim la muy togg te boolewu ca ndox leneen la bëgg a def waaye tudd toggagul noonu la ak laab mel ci julli jàpp nag moo ca gën jàpp moo gën a wóor tiim la boroom xam-xam ba di mag tontu woon moo ca nekk dañ ko ne jàpp ak tiim lu ci gën mu teg fële càkkos soo xam ne ngise soo xam ne xaalis ci nekk ne dem leen tiim ko te ñëw ñu dem tiim ko te ñëw mu ne mu ne diw dama jàpp ko te andil ma ko fi kooku jël ko andil ko mu ne ko yéen ñaar ñi ku ci kenn ko kii ne damaa tiim kii ne damaa jàpp mu ne jàpp nag moo gën a wóor tiim moo tax mu bind ci beneen téeram ne inna inna taharata ladayhim taxsulu بالماء مطلقا على ما نقلوا وهو الذي سلم من تغير في طعمه واللون مع ريح دري وحيثما بطاهر تغيرا فطاهر هو ولن يطهرا laab gi may wax nag nee na ndox moo koy def ndox moo xam ne doo ko xool mukk ba ne daa bula wala dafa wert doo ko guux mukk ba ne daa saf suukar wala daa saf xorom waaye doo ko def ci say wakkan booy salaxandiku yit ne daa xeeñ lañ ko lañ wala dafa xeeñ pentiir ndoxum ndox daal moo tax waroom xam-xam yi war nañu gëstu bu baax a baax ci ndox yi xew léegi rawati nag ndox yi nga xam ne dañuy tàggale ndox ma ak na meloon na ko yàlla bindee woon def ca ba mu neex neexa naan lool loolu it waroom xam-xam war nañ ci jindi ba xam mat naa mën naa laab laabal waaw wala déet bu laabee it ndax mën naa laabal waaw wala déet ak yañ cay def yan la moo tax mu ne bu ndox mi soppikoo ci benn ci yooyu mu wax daay xeeñ nangam daa mel nangam dafa saf nangam nañ xool la muy xeeñ ak la muy saf ak nam mel ba xam su dee loo xam ne may su ko laab nag ba laj ko lañ la laj ko lañ dañ koy tuuroo ci lu dul dara kon ndox mooma bu la neexee boo ko soxlaa te du wàññi dara mën nga ko toggee wala nga ataayaa ko waaye mënoo saa jàpp mënoo saa sangu bokk yi ndox mi sang mi jàpp mooy sangu mooy sang waaye su xasee ba mel wenn melokaan wala mu saf dara wala mu xeeñ dara moom ci misaal ndox mu saf suukar kuy togg laax day yomb ci moom lool ndax duutu suukaraat wala muy ataaya kon laab li julli di ñu toll lépp ba bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jot yàlla da ko wool boppam yónniwu ci kenn daf ne nañ jaar ci laab door caa dem am na ñu ko néewal solo fuñ ne ay ci leen ñu jóg taxaw wala sax ñu tiim waaye ñi nga xam ne sëñ bi lañ topp moom sëñ bi ne laysa laysa lahu bi dalika tayammumi yawma alqiyamati siwa jahannami aadana allahu min alxusraani wa sarri iblisa madal azmaani moo tax ñi ànd ak sëriñ bi sëriñ bi wàccoon ak ñoom yoon wuñ dog ñoo ko dogal seen bopp waaye suñu bëggoon suñu bëggee layoog moom ëllëg ci nii ñu ko toppee damaa neex rek dama ko bëgg lam joxañ amoo ci soxla ak lu mu sew sew su ëllëgee ka ngay layaw da nga koy gis ka ngay layaw da ngeen tasi tribunal waaye ka ngay layaw su ñëwut dañ koy dàq ak dàqaat kon dawaa ir yëpp muy daa ir yeeg diwaan yëpp nañ ci jàngale mbindum sëriñ bi rawati nag la ca aju si teg jaamu yàlla bayiwu ca dara yàlla na dafa dëgg topp te musaluñu seytaane ak pexe yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimina amin